madame la ministre nous sommes lay nuyu di kontaan ci yow si sa liggéey ma am tuuti laaj madame la ministre ci référendum bi point 4 dañu waxoon ni dans chaque localité vous génne des ressources la muy am gox boobu war na ci gis bopam yàlla def na ñun amuñu pétrole ci zone bobu amuñu or ci zone bobu mais am nañ de guerre la de Guiers bi dafa nekk ci département Louga bu mu sañoon nag département Louga man cee gën a gis boppam te loolu day nekk lu am solo madame le ministre maa ngi wax ni les RSE responsable sociétal d'entreprise war nañ ci gën taxaw fu entreprise nekk nit ñi dëkkee ca gox boobu entreprise yooyu di leen jàppale di tabax lu mel ni hôpitaux lu mel noonu nga xam ni nit ñi daañu gis seen bopp man nag am na tut lu may laaj damaa gis ci événement Macky Sall ci la ressources yu bari feeñ ci biir Sénégal may laaj loolu lu ko waral ma yaakaar ni kon kooku chance Sénégal ndax yàgg na yàgg naa fi dégg ñu wër pétrole ñu wër lu bari te mosuñu ko am waaye moom bi mu ñëwee rek ci la lépp daal di baax. ma bëgg nag nit ñi xam loolu te xam ni yàlla moom du fay wax bàyyi jëf booy jëf rek yàlla day ñëw donc jàpp naa ni jëf boobu mag Macky di jëf te boolewu ci wax moo tax yàlla fayee ko lii tey foo laal rek am na lu fay génn kon nag maa ngi ñaan sénégalais yi ñëpp jàppale ko xam ni moo fi nekk te mu ngi liggéey te ku gis réew mi fi mu tolloon démb ak fi mu toll tey ñu xam ni dëgg dëgg dëgg dëgg Sénégal mi ngi avancé même ñi ma gis sax ñu toog fii di wax ñoom seen bopp avancé nañu ndax xamoon naa leen dem xam leen tey kon nag ki fi nekk nañ ko jàppale rek te yàlla tax je